mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee ndokkeel leen ci weeru koor wu màgg wi di sahru ramadan ñu dellusiwaat ci seeni guddi naafile yi ñu leen di indil ci téere Serigne Souhaïbou Mbàkke bi ñu dikk ci guddig ñeenteel bi guddig ñeenteel bi ñeent rakk la rakk bu nekk ñu jàng ci faatiya ak xul ya ayyuhal kaafiruuna ñeent yoon ñu baamtuwaatal leen ko ñu dikk ci guddig ñeenteel gi ci guddig koor gi guddi weeru ci weeru koor gi guddig ñeenteel gi ñu dikk ci yéen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 laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wa sadadi